mbokk yi maa ngi baalu xaq ñépp ku fi teg di ñaan suñu borom yàlla nañu boole jéggal yàlla nañu suñu borom nangul suñu koor lim ci jege na njalbeen gi yërmande la mujj digg bi njëggal la mujj gi gore ci sawara la rahma wa wasatuhu maxfira wa axiru xitqatu min annaar yàlla ñu ko yàlla defal mbokk yi yàlla ñu yàlla boole jéggal mbokk yi woor nañ ci jàmm ak salaam ganu njariñ gi ganu xéewal gi mi ngi tàggatoo ak ñun te yàlla dellu si nag te fekk ñu fi tañ tal ko te woor ko war gu rafet yàlla ko yàlla defal yàlla dogal nag àdduna bépp ñu ndoo loolu nag yàlla yàlla na ci ñun ndax de lu suñu waroon nag moom rek moo ko xam waaye nag kon war a cee jànge daan ne jullit yi de seeni pas-pas bu wutee seeni xol warta bañante jullit yi seeni pas bu wutee seeni xol warta bañante loolu lañ ci war a jàngi mbokk yi mbokk yi ak jullit daa war a yéene boppam lim yéene boppam la la war a yéene moroomam ndax jullite jullite kenn du mat ci yéen lu may la nga yéene sa bopp danga ko yéene sa moroom mbokk yi lu baax rekk a fi nekk te ci ñu ñëpp ci loolu war a góorgóorlu weeru koor wii jàngal nañu lu bari jàngal nañu muñ jàng nañu def lu baax jàngal nañu boole dinaa fi landoo ñëpp di ko defandoo loolu li mu teg tale mooy ñëpp war a defandoo lu baax ñëpp war a bëgg lu baax xiif bi ak mar bi mar gi jël ñu dara suñ boroom dañu koo diggal rek ñu war koo jaam mu diggal ñu ñu def ko nam ko diggaloo ñu ñu jiitu woon mu digal ñu ko mu am njëriñ njëriñoo saahir am njëriñul baatin ndax suñu borom lim diggee ku ko def ëllëg yow xiyam lim ci diggee woon dina la ko defal comme lim diggee lim diggee woon ci koor ëllëg yow yow xiyam yalla ñu ko defal bokké ñu xamné ne fi réew mi tollu tay ñepp wara taxaw ci soppi ko am réew nak kenn du jàpp ne njiiti réew mi rek mooy moo yor sopp soppi soppi soppi ga ku ci ne ku ci ne ci ñun ku ci ne ci ñun war naa jàpp ne li soppi réew mi ci wàll nekk waaye nag bu ko jàppee njiiti réew mi bu ko jàppee ministre suñu borom wax ne inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suñ borom moom lu soppi ko mu lu dul mboolem ñu nit ñoo bëgg soppi ko ma soppi ko fekk fekk si leen bëgg ndax nit ki li nga man yàlla dina ko defal mukk yàlla day xool li nga mënul mu defal ko kon mbokk yi réew suñ ko bëggee soppi ñu boole xol yi rafetal ànd bi te te jàmm tey bàyyee te xel tey tey tey wàññiwaat tey wattu kàddu yi te defaraat jikko yi tey nangoo liggéey am liggéey am réew liggéey ko yor rawatina am mbay ak mbay mbokk yi réew moo xam ne bir si ba juróom benn junni milliards te ñett yi am wala ñaaree genn wàllu gis da koy lebi da koy wuti feneen ku bëgg mu man nag loolu mbay rekk ko mën a matale kon na ñëpp dellu ci tool yi te jéem a góor te songaat dund ba ba dund ku baax nga war ci doomu aadama ku néew mëntu koo am cim réew métti métti dugg na jafe dugg na te ak dund nag ñëpp a war yem ci dund ab ab dëkkuwaay naa seer dund mën naa war naa mën a yomb kon nag ñi ngi interpellé ñi nga xam ne ñoo yor réew mi dañ dañ luñ mën a investir feneen dañ ko dañ ci boole ay forage ci réew mi fu ne ami forage ndax ñëpp mën a bay su ñëpp doon bay rek jafe-jafe réew mi léegi wàññi ko nit bu xiifee jëfandikoo su woppee faju su maree naan yaakaar naa la ci des mën naa yomb ab dëkk waay mën naa yomb ndax nit fu mu xaar dee yomb na ndax jaar sax balaa dëkk daa gas picc balaa balaa dëkk dafa tàkk loolu yomb na kon mbokk yi loolu lañ ko bàyyi xel dañ xam ne tamit ñii ñu fal na li may tuuti ab diir bañ leen yàkkamti ndax kenn du wax a saxal baabu summi tooba saxal baabu summi yaakaar rek lañ am ci ñoom dañ bokk ñaan suñu borom ñun ay julli lañ te suñ gànnaay lépp mooy ñaan yàlla amuñu genn ñaan laay bu gën a rëy ñaan suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu saali daana wax naan nit ki li yaa ko ñaanul sa borom nit lu mu ñàkk rek moo ko ñaanul borom su ko ñaanee borom yàlla yàlla may ko ko kon li ñu yaakaar ci ñoom ñu dimbali jullit yëpp dimbali réew mépp yàlla yàlla nañu ko yàlla defal te defal ñu ko yàlla suñu njigilaay te seen njigilaay ñoom tamit ndax gënuñu fi ëpp ñu fi xam-xam gëm ñu fi ëpp ñu fi xam-xam yàllaa ko dogal mu teg ko seen loxom yàllaa ko tànn tànn ko teg ko fi képp ku ab julli nag lu yàlla dogal moo laa neex yàlla nag lu mu dogal ñaax nañu ñu ànd ca loolee di ko sant nag di ñaan yàlla rek muy suñu jiglaay kon mbokk yi la ca desaat mooy ñun ñii di askanoo ci ay kër yi diine muy Tuubaa muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy faneen ñun de waruñoo xaar ab gouvernement waruñoo xaar ab gouvernement ci ndax ñu ñun yàlla defal nañu li gënum gouvernement defal nañu force boo xam ne mu ëpp ministère ab direction mbooloo moo xam ne saa soo woo bala ngaa woote ñu jox la bala nga laaj ñu jox la yaakaar naa sa kattan googu ak doole jooju yaakaar naa moo ëpp doole ak ministère wala ak ak ak ak directeur kon mbooloo moomee ñu yàlla wërsëgale ak kattan googee dañ ko fas yéenee jëfandikoo ndax ndimbal nag na ci fekk loxol borom ndax li indi raay bi tuubaa tax taxaw jubaay ji tabax ab Talmadou Fousseyni te lim juga boobu kenn na ko defoon jumaay Tiwaawan ji nit ñee ko def li taxawal li taxawal loolu suñ ca wéyee yaakaar naa loolu ñu soxla gouvernement te sëñ bi loolu la waxoon kon kattan nañ dajale suñ kattan gi ñu yàlla boole ku ci nekk yàlla wërsëgal na mbooloo mu toll ni soo laajee ñu jox la wala bala ngaa laaj sax ñu indil la kon am réew. bu ñu ko bëggee defar ñu yàlla déggal te jox leen su ñu waxee lu tax yéew a jëm ci kanam bu leen ci yàlla xiiree yokkute ga mën naa gaaw lool kon nag ñun ñii wujjee ay do wuyoo ay doomi soxna yàlla yàlla xiir ci luy defar réew ak lu koy jagal kon mbokk yi moo tax ñu am ministre rek keneen am ko loolu war nekk suñu yitte ñun lii war nekk suñu mooy kattan gi ñu yàlla dox naka ko def ba jëfandikoo ko kon ndax réew dëkk boo xam ne ci misaal ci Touba ndox mu neex sax amuñu ko ndox mu naqar lañ am dafa dafa rut doy am ñoo xam mënuñu koo am loolu nag te ad addiyee taay bi xëyut ci ndox kon loolu tamit war sa koo xoolal muy Tiwaawan muy Njaasaan muy Ceneb muy Kawlax muy faneen ak faneen ku ci mbooloo boo xam ne seen indi seen ñaar téeméer indi ba kenn xeeb ndax am réew mi Sénégal Ah, li ci ëpp ci réew budget bi ci impôt lay jógee Tuubaa Tiwaawan tamit lépp li doxal dëkk ba ci addiya lay jógee addiya impôt benn la addiya addiya moo gën a barkeel ndax ci ndax ci coobere ak ak xol bu set ci nga koy ci joxe kon mbokk yi kàddu yoon ku ko dikk na ko jottali sa morom dañ xam ne réew mi ñëpp ko bokk ñu ngi ñaan tamit ñi ñu dénk réew mi kuñ ci dénku fastu yàlla boo ci wane yàlla boo ci wane fa nga bokk di ci xeex ñi ci des yàlla bi ñu ko yàlla nattoo ñu ngi ñaan képp koo xam ne dénk na la poste ñu ngi la koy ñaan poste bu la dénk ñu ngi lay ñaan yàlla nga ci doxal ak maam ndax ñëpp ko bokk si saa li ma saa wax kenn kenn na ko réew mi réew mi de bi nga xam ne mbàkke ak mbàkke ci lañu réew mi lañu bokk kon réew mi ñëpp ko bokk kon ñu ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñoo fi nekk ku dénk poste rek yàlla nga ci doxal ak maam mbokk yi tey maa ngi leen dénk dénk ak jaamu yàlla fàttalikuwaat suñu borom subhaana taala weeru koor jeex na hmm. waa jaam yàlla jeexut hmm. ndax wax dëgg rabbuka hattaa yaatikal yaqiin hmm. nit ki daa war a jaamu yàlla ba dee dikkal ko waxtu mu tudd sax wax waxtu mu tudd tëdd dem ci suñu borom ak jaamu jeex na lii tegtal la sa weeru koor nangu na soo ci jugee sa xel ak sa cër yëpp day gën a sawar ci jaamu yàlla bàyyi leen xel loolu képp ko xam ne sa weeru koor naa na fekk nga xamee su weeri koor jot jeexee sa cër yëpp ak sa xol day gën a sawar ci jàmm sa borom subhanahu wa taala loolu mbokk yi ngeen bàyyi xel maa ngi nuyu ñëpp tàmbale ko ci chef de quartier bi muy sëriñ Maysa Diop ak mboolem waa jàkk bi nekk ñëpp ngi leen nuyu di leen jox seen war ci seen woteeg jëmu ak seen woteeg lépp maa ngi leen ci bàyyi ku ci ne cër ba nga yàlla ba nga yàlla jox maa ngi leen koy delloo waa ko bi ñëpp maa ngi leen nuyu nuyu tamit di ci ki moo tax moo ñu fi yebal ci ndigal la muy Cheikh Mamadou Mokhtar Mbacké waa ngaay ñu ngi leen di sant waaye ñu ngi ñaan yàlla defal ñu xol xol yu xol yu juboo yàlla ko ko yàlla doole ndax yàlla na ko fi yàlla ko yàlla doole xam ne daal lii rekk la islaam ñoo ko bokk nit nag su ngeen bokk li ngeen mënta seddoo da ngeen koy bokk bokk téye bokk sàmm te mooy ci ku ne am na pas-pas waaye pas-pas ba mu gëm nag ku ci na ko sàmmal moroomam na ku ne sàmmal sa moroom sa pas-pasam te warmaal ko te jàppal ko ko nit ki bu ko xeebal sëriñam nit ki bu ko xeel pas-pasam nit ki fa ko day ci waaye lislaam na fa day na fa dem ndax sëñ bi dana wax in lam tolaaxa muslihan fal taktafi bi ma bihi nassa xiyaaru salafi jàpp ne sa ab sëriñ mënoo ko am jàpp ne gisoo gisatoo ko la doy na nga jàpp si na nga jàpp si suñu sëriñ def ko sa kon bu leen gis kenn mu jàppee mu ñàkk jàppee ak ab sëriñ jàppee sunna ab sëriñ bu leen ko xas bàyyi leen ko ca la mu jàpp nekk mu nekk dafi nekkay mooy bul ëppal bul yéesal bul gàttal yamal yamal ci sunna te jub wala takun mufarritan aw mufritan bal astaqim fi sunnati wa aqsita loolu rek ma am solo bu kenn bu leen buñ tooñ buñ fay tooñ dañuy jéggalante tey baalante xaq tey sunnalante tey nëbbante tey tey yibbilante nit ki nit ki kun jox lu lu la ëpp lan laa seetlu loo say bokk soo leen ëppalee da leen war a jariñ say dëkkandoo boo leen ëppalee da leen war a dimbali te leen war a xettali loolu mbokk yi ni ko ñëpp xam li fekk nag dimbalante amul yërëmante amul iñaante iñaanante du fi jug sosalante du fi jug dimbalante bu amul rek iñaante iñaanante du fi jug seraanga du fi jug teraanga tamit bu ko nit di jaay say bokk baa nga ko jaay say dëkk doo bu yàggee soxor soxor di ak kañal kon dañuy dañuy dañuy tarlante te teraanga ji ko yàlla defal nga ne ko sant te di ko nëbb loolu ci am solo la mbokk yi ñu bàyyiwaat xel suñu borom bàyyiwaat xel li ñu li te lu mel ni jàkka ji julli ci jàkka yi fonk li yàlla fa li yàlla digle ci ñun ñu fonk ko te di ko def lu am solo la bis yu ñaari kese la képp la ci at kon yàlla na fi ci waat te kenn bañ a manqué nag yàlla jéggal ñu te doon ñu sutura dafa dafa ñu tawfeex ñi nga xam tamit dañu dañuy organiser ay for mooy mooy tegtale ne sa koor moom dara nangu jël ñuy organiser ay for ci ginnaaw koor bi nga xam ne seen seen seen seen koor dara nangu jël ndax koor koor gi comme defut dara ci yow leneen mënu ko def ci yow kon dañ bàyyi xel la bu koor yi jàllee ngay organiser ay fo jàppale yow sa koor moom bu nangu ma di nga tànn leneen lu dul lu dul organiser seen doom yi ngeen jëlee yóbbu leen ci daara yi njàng alxuraan ndax njàngum tubaab bi njàngum alxuraan mën nañoo ànd te mën nañoo ànd yépp ànd yëpp baax yëpp mën na ànd mën naa mën naa mën naa baax nit ki bul jël alaxira rek fàtte si àdduna waaye bul jàpp sa adduna fàtte sa alaxira adduna ay boole adduna ak alaxira kon kenn ab jullit lu jàpp alaxira bàyyi addunaam day jàpp addunaam jàpp alaxira kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu